Euh, def na ay jéego ci li nga xamante ne moom mooy mbënd mi puisque bu fekkee ne dafa dégager un budget de 10 milliards les 3 milliards pour soutenir ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay jafe-jafe déplacé wu ànd ak ñi mu war a àndal jël ay dogal ba ci sax li nga xam ne dinañ ci ñëw ci kanam du ñu wax ne au mois def na ay ay ay jéego yu am solo ci ah, mbënd mi ta question <laughs> m'a fait sourire parce que quand tu di dis def na ay jéego euh, su jéego yu matoon du ñu fi toogaat 2012 euh, ñu nekkoon ci ay inondation def nañ ay téléthon ah, am na année boo xam ne le xalif général yi mu contribué na euh, Mbaye Ndiaye bi bi nekk ministre de l'intérieur ah seen kër gi organiser na fi téléthon chaque fois parce que ay solutions yu ponctuelles la ñu indi j'ai comme l'impression que euh, dafa mel ni xale bu nekk ci détresse wala muy jooy nga ñëw jox ko tàngal euh, bu ñu nekkee ci ndox nga ne naa leen indil ceeb alors que ñun lu ñu soxla mooy ay solutions yu structurelles xam nga je vais pas être là di wax ci communication au président mais man dès le début bi yëf yi ne këtt ne jon rek mu toog palais def costume bu bleu bëgg a wax ak ñi nekk ci ndox mi j'ai vu en président distant euh, à Kër Massar comment on organiser parce que d'habitude wax naa la keroog maa ngi doon félicité Marème Faye Sall parce que elle au moins elle a été au contact ma ragal sax mu jële fa corona wala dara mais kii bi mu ñëwee dañu bunkeriser dëkk bi wut seen benn baas ngénte même les chefs de quartier les acteurs principaux yi ngay wax ils n'ont pas été conviés ñu filtré ko ñëw na def na costume am sol na lu rafet taxaw na fële tàllal na loxoom wax na même dans sa communication moom moo tax xam lu tax mu dem di wax ay waxu département pour déplacer débat bi pour ñu ñuy wax ay waxu département alors que débat département commencé wul tey depuis deux mille 2008 ñu ngi ciy wax et puis mënoo dagg ci département dafay correspondre ci benn besoin benn cohérence territoriale c'est comme si man Cheikh Omar yaramu neen la def man maa ngi bëgg lu ma woddoo pour bañ a def yaramu neen mhm. nga naa ma naa la ñëwal ñetti Abdou Gara pour bàyyi lool sama xel gis nga euh, bu ñu naxante les responsabilités son partagées comme Sanoussi a dit état yëpp am nañ ci responsabilité mais moom bi mu ñëwee am na programme bu mu teg programme décennal décennal yaakaar naa mooy ci fukki at bi mu fi mhm. léegi léegi ñu jege fukki at qu'est-ce qui a été fait Mansour Faye nekkoon na fi ministère bu yoroon loolu waroon nañ ko woo déglu ko laaj ko ñëpp ñi nga xamante ni seen responsabilité situé wu na ci. ñan ñooy joxe suuf yi maire yi ñuy wax ñooy def délibération fu waay neex dagg kër gu am ndox ak zone bu amul ndox donc mënul ñëw foofu di def médecin après la mort pour ñu wax ni bu kenn joxee joxeeti suuf fu nit am ndox. beneen bi euh, Kër Massar moo am ay gaal ay ndox yu verte mais tout au cours de Kër Massar y a des a des difficultés par exemple. vous allez à Yeumbeul Sud y a des am naa sama boo xam ne ci ci ndox la nekk bi mu ma waxee ne ma amuñu sax yére buñ sol parce que seen moo fa des c'est l'investissement de toute une vie pour Sénégal nga am fi kër wala nga am foo dëkk xam nga véritable urgence véritable débat du président egg na Kër Massar wala bañ na egg bu ko neex sax bu mu ñëw li ñuy xaar mooy solution bu structurelle mais li ñuy bëgg bëggaguma dugg ci débat département mais en tout cas jàppal ni ñëwam Kër Massar bi pour man euh, non événement la ci man parce que bi mu ne këtt ne jonn dans l'urgence on l'a pas vu il a préféré moom mu dem xaw ma CEDEAO wala xaw ma Niger ah fukki fan après il revient pour nous diir ay dinaa joxe ceeb ak ay dinañ leen jox ndimbal gars xam lu ñu soxla guddi ñu toll lu leen génnee ci ndox mi am na ku ko fàttali président duggoon na ci ñax mais lan moo ko teree man man bu ma nekkee ci mbir ki ma ciy fekk si même boo ma fajalul sama soxla nga ñëw dugganteeg man ci ndox mi rek am na benn acte de sympathie mais gars yi bu ñu nekkee candidat wala ñuy wuti di nga gis ku xuus di gis sax ku naaw mais gis nga mhm. am na fu ñuy egg seen distance boobu ñu dafa mel ni euh, maa ngi doon wax fan yëpp di kaas naan président ñëwul pikin gisuñu ko nangam sangam alors que toute une journée il devait faire une tournée parce que bi muy nekk candidat il faisait une tournée départementale gox bu ne mu dugg fa. Mhm. qu'est-ce qui l'a empêché mu egg yëmbal egg jàmmagën euh, si ka mbaaw egg mbaaw pour xool yan jafe-jafe la askan bi nekk parce que il n'a pas besoin de venir pour juger ni pour jauger la réalité.